là aussi seen est une grande question. xam nga tey bu ñu waxee famille libérale. dinañ mhm. tudd Idrissa Seck. parce que quoi qu' on puisse dire c' est libéral mhm. tudd aussi Karim Wade mi nga xam ne gars yi ñu ngi respecté ne dina ñëwam du ñëw. Mhm. mais en tout cas libéral la également lan lañ ci mën a xaar. gis nga ay euh, Idrissa Seck su nekkoon la mu nekkoon. la mu nekkoon mooy ay côté 2007. est ce xam nga 2007. Idriss Seck jëloon nekkoon na président Sénégal la pare. 2007 su Idriss Seck demul woon fekk Ablaye Wade si li ñu doon woowee les audiences de midi ba sénégalais yi finalement xamatuñ lu mu bëgg dañ doon dem élection mu battre Ablaye Wade. Mm-hmm. mais diggante boobu mu doon dem di dikk ñu naan kii lu mu bëgg ba finalement mu ne candidat la ñoom Ousmane Tanor Dieng ñoom Abdoulaye Bathily doon doon defar di préparer pour monter ak moom benn coalition pour dem législative mu njuuy leen dem seeti Abdoulaye Wade gis nga loolu bu xewloon man gëm naa ni Idriss Seck 2007 la waroon fal. Mhm. mais quand il a fait malgré loolu malgré loolu il est arrivé deuxième en 2007. Mhm. mais nous sommes en 2023 Aïcha 2007 ak 2023 ñaari at la. 13 ans. eh kay ëpp na ko. quinze ans. 15 ans 16 ans 16 ans. ëpp na ko donc Idriss Seck boobu tey jii man gëm naa ne après Macky Sall te moom moo waroon jiitu Macky Sall d'ailleurs. Mm. du point de vue cursus sa jaar jaar politique moo jiitu woon dans l'appareil PDS moo jiitu woon. Mm. mais Macky Sall la yàlla tànn. Mm. mu nekk président de la République ak sénégalais yi ñoo ko far ñoo ko fal. mais après Macky Sall tey booy xool la famille libérale da nga naan. ki waroon a nekk seen seen seen porte étendard regroupé leen mooy Idriss Seck mais xamal tax mënta ne te du ne wala boog bëgguma insulter l'avenir bu nekkee dina ma jaaxal lool. Mm-hmm. mooy gis nga ay ce contentieux bi dox ci diggante la famille de Wade ak Idrissa Seck dafa dépasser affaire politique. Mm-hmm. c'est aller trop loin. que ni tu verras pas le PDS wala boog en tout cas Karim Wade ak le PDS wala boog lu may jaaxal lay doon ñu dem naan dañuy ànd ak Idriss Seck. gisoo loolu. non politique nag lu ne mën na ci am. Mm-hmm. moo tax je dis souvent je mm-hmm. n'insulte pas l'avenir. Mm-hmm. bëgg mu wëllëgee ñu baar ma fi naa Moustapha Diop moo waxoon lii mais man dama gëm ne man ñu ne ma woon Macky Sall ak Karim Wade retrouvé wu nañ malgré que Macky Sall yóbbu na ko prison man pour man moo gën a yomb Idriss Seck ak Karim Wade retrouvé wu nañ parce que jaar-jaar bi la. y a eu des des yu ñaaw trop ci diggante bi Idriss Seck yëkkati ay kàddu yoo xam ne ku mu ko jëmale woon sa papa nga bàyyi ko. mu jëmale ko ci papa yi Karim moo taxaw fii Sénégal gépp di ko déglu mu ne Ablaye Wade ancien spermatozoïde la futur cadavre. ci réew mii réewum Sénégal mii. Mhm. nga wax fi loolu président de la boo xam ne am na juróom-ñett fukki at. Mhm. di ko dégg. 2016 bii Idriss Seck sorteem bu mujj bi mu fi def à Thiès yàggul dara bi muy annoncé ne moom mooy chef de l' opposition mais lu nekk la fa yàgg Karim Wade. Uh-huh. ak ak ak Abdoulaye donc tey bu ñu dee wax retrouvailles de la famille libérale. Uh-huh. dama yaakaar ne dañ ciy génn Idriss Seck mais Idriss Seck ak Karim Wade ànd. lu nekk mën naa am ci politique mais man de su amee dina ma jaaxal lool man ñu ne ma woon Macky Sall ak Karim Wade da ngay ànd moo gën a yenu maanaa pour man. Uh-huh. moo tax soo gisee le le le triangle nii. Macky Sall Idriss Seck Karim Wade Macky Sall Idriss Seck c' est déjà réglé parce que ànd nañ fi. te ba ah. léegi réeroowuñ mais dugal Karim Wade foofu lu jafe-jafe lay doon. loolu la gëm est-ce que euh, dialogue bi tamit Moustapha réglé wul réglé wul quelque quoi loo xam ne yëguñu ko parce que ba tey conclusion wu dialogue bi. Mhm. li ci nekk yëpp yëpp ci cappaandaw gu ñun sénégalais ba tey am na luñ ci umpe. conclusion wu dialogue bi kay leen dong la woon Khalifa Sall Karim Wade bokk te loolu assemblée nationale ko moo ci des. leneen loolu kese la woon loolu kese la woon Karim Wade bokk ak Khalifa Sall. te lool te lool te lool ils l'ont réussi man doon naa comprendre sans su dialogue mais il faut pas oublier Moustapha que PDS mu ngi woon ci biir dialogue bi. waaw réew mi également ñu ngi woon ci biir dialogue bi pour que Karim Wade bokk. Mhm. le PDS kay ils ont été très clairs. Mhm. que ni ñoom l'histoire de Karim Wade day bokk ak du bokk laa ñoom pour ñoom c'est réglé depuis longtemps ñoom ils a accepté ça. moo tax ma bëgg la laaj Moustapha benn question rek. xam naa mm. temps bi xot nañu mais euh, focus bi nga xamante ne nii Sonko taxaw na ci thème. Mm-hmm. est-ce que du ñoom aussi ci seen ci seen ci seen i kàddu focus 2024 boobu ñu ci la gën a taxaw comme quoi que tout sauf Sonko mais lu mu leen jaral da leen ko jaral. quitte à ce qui se retrouve mais bien sûr. Ah, mais mais tout sauf Sonko boobu. Mm-hmm. ñoom ci lañ nekk. mais li ma li ma la wax sànq mooy contentieux bi dox ci diggante Karim Wade ak Idriss Seck wala moo wax la Karim Wade Idriss Seck ak njabootu Ablaye Wade. Mm. dafa dem à un niveau boo xam ne pour ñu àndaat du ma ne du nekk mais lu jafe la am na yoo xam ne ay sa xëy na euh, wax ji du fii te fekke woo ko. Mm-hmm. dafa xaw a kii mais sax bi bi soxna Karim Wade génne àdduna. Mm-hmm. soxnaam Karim Wade. mu génne àdduna. boobu man reporter laa. Mhm. di dem reportage dem di ñëw. Mhm. à l'époque bruit bi doon wër ci rédaction yi mooy Karim Wade dafa refuser Idriss Seck jaalise ko. il a fallu à loolu lañ ko doon waxee. Mhm. il a fallu que Ablaye Wade ci boppam intervenir pour que am na benn photo d'ailleurs bu Karim tax sole benn basin bu maro di jox loxo ni Idriss Seck boobu ca dëj ba la. il a ay wax yu ay ay kii yu bari pour convaincre ku mu ñëw fa Karim Wade ne pas Idriss Seck. Idriss Seck ne supporte pas Karim Wade. loolu mooy li am donc pour ñu àndaat. pour xeex euh, euh, Ousmane Sonko ñi mu àndal dina ma jaaxal lool. léegi du ma ne du nekk mais dina ma jaaxal. benn retrouvaille wala peut mënuñu ko jàngee retrouvaille parce que peut-être est-ce que àndoon nañu waa àndoon nañu sax parce que coalition Yewwi Askan Wi euh, PDS mu ngi woon ci biir mooy Yewwi mooy. Yewwi Wallu Wallu. Mhm. bu fekkente ne euh, chance su euh, Ousmane Sonko dafa réduire par rapport ak participation mhm. à l'élection de 2024 est-ce que ñoo gis éventuellement benn raccord boo xam ne war na mën a am ci diggante Karim Wade ak Ousmane Sonko boo Karim Wade ak Ousmane Sonko je sais pas je sais je vraiment pas xaw ma mais li ma xam mooy mm. euh, contentieux bi dox ci diggante Karim Wade ak Idrissa Seck contentieux bi dox ci diggante Ousmane Sonko léegi nii fi ñuy waxee ak waa ak ñoom Khalifa Sall doxul ci diggante Ousmane Sonko ak Karim Wade. cest à que pour man ñoom amuñu contentieux souvent da ngay dégg ñu ne euh, Ousmane Sonko moo waxoon ne les anciens présidents de leen war a fusiller. Mm. te loolu ah, ay waxu kii la. Mm. Euh, souvent da ngay dégg ñu ne waa PD soutenir uñ Ousmane Sonko nangam nangam mais bul fàtte ne bi ñuy boote la motion de euh, pour lever l'immunité de Ousmane Sonko. Mm. waa PDS ñooñu opposé woon donc en politique je dis man très souvent que mm. man mm. bokk naa ci ñuy wax naan en politique on ne dit jamais mm-hmm. mais dafa am ànd yoo xam ne man bu amee ci politique daf may jaaxal lu mm. nekk nag mën naa nekk ça m'étonnerait pas demain li ñuy wax nii effacé wu leneen am à la réalité parce que réalité politique chaque jour ak lay xew mais encore une fois man je continue à penser que ni diggante famille libérale boobu ngay wax boole leen boole leneen ak gën Moustapha on dit très souvent mercato médiatique mais maintenant est-ce que duñu xaar mercato politique. mercato politique bi day tijji léegi. parce que àjjuma bii ñu ne def àjjuma bu Macky Sall waxee ne diw mooy candidat. su fekkee wax na ko àjjuma. mercato bi tijji nga gis ñiy jóge fii dem fii ñiy jóge fii dem fii ñiy jóge fii dem fii. maa la wax loolu. <laughs> Ousseynou kon ñaa ngi lay jaajëfal. <laughs> jaajëf. xam naa d'ici mardi prochain dinañu am lu bëri lu ñu mën a wax ah. parce que mercato bi tijji fekk mercato bi tijji ñu wax ku ci nekk la nga waxoon. xam naa ne kuy liggéeyee woon Fadjri moom di nga xam ne léegi mercato bi tijji parce que commencé woo. waaw wut invitation lan moo tax am na lu ñu bëgg. waay waay waay commencé woo commencé nañ ñu man moom temps xam ban laa jël.